ah sama mbébét mooy euh, comme ni ma la ko waxee ci ci nasaraan sànq euh, jéem a liggéey ci ligue bi li ma tàmbalee liggéey ci sama niveau club sama quartier euh, ku ci nekk sa gox ngay commencé liggéey bi après muy gën a yaatu ba xëy na nga dem ci beneen niveau national wala international mais man dama jël choix wu bañ a brûler benn étape balaa may dugg fédération dama ne dina am expérience su te la ma tàmbalee woon liggéey sama quartier ba gis yenn failles yi nga xam ne ñu ngi ci basket bi wala yenn gàllankoor yi. ni ma ko jéem a dindee au niveau de sama quartier ma jéema a liggéey ci ligue bi pour gën a dëgëral tam liggéey bi ci côté euh, cinq euh, points yi ma la wax ne moom moo nekk sama programme bu dee euh, ponk lañ koy wax ci wolof benn bi mooy ci formation bi mooy ci xale yu tuuti tuuti yi jéem a gën a dëgëral formation bi tuuti tànk yi jéem leen defal benn académie régionale de basket mooy naam benn bërëb boo xam ne mën nañ fa jàng basket pour compléter li ngay am ci sa nga am ko ba pare nga mën a euh, xamaale joueurs yi nekk ci région bi yëpp ngeen fay daje chaque vacances scolaires wala benn yoon ci euh, weer bi pour entraîner ensemble loolu dina tax Dakar ëllëg bu bëggee tabaxawal benn sélection régionale wala bés bu ñu nee dañuy créer équipe nationale U16 Dakar am benn base déjà buy exister euh, académie régionale boobu concerné wul xale yi kese bugg nañ ci tam dimbalee ci wàllu entraîneurs yi fexe dinañ amal ay stage ay séminaires yu bëri yoo xam ne dina leen permettre. ëllëg balaa ñuy dem di woti ay premier degré ñu koy bâcler ci 15 jours ñu préparer leen pap maanaam ci at ñu jàng basket parce que basket quand même ñi koy jàngalee ngi fi ñu ko mën jàngalee ngi fi euh, experts yi bëri nañ fi ñi ci am xam-xam bëri nañ fi ñooñu suñ ñëwee ci niveau ligue bi euh, di échanger seen ay xalaat ak jeunes yi nga xam ne tey dañu bëgg a au haut niveau wala bëgg a am premier degré bu jaar yoon ñu koy mën a def en continu pas en quinze jours pas formation yoo ne pour man taaba taaba 15 jours nii rek ñu jox la diplôme euh, dafa yomb. Euh, jàng bi mën na gën a dëgër mën na gën a yàgg ci wàllum arbitre tam mën nañ jéem a ak suñuy relation fexe di am ay arbitres internationaux di ñëw di former arbitres yi en cycle continu comme on dit euh, ci année bi yëpp au niveau de la ligue en tout cas pour li concerne région de Dakar ñu jéem a euh, jouer ci li ñu am ci relation yëpp pour mën a indi xeetu xam-xam yi nga xam ne mën nañ dimbale basket bi ñu ñëw di ko fa jàngale ñaareel bi mooy ci wàllu infrastructure mooy terrain yi seetlu nañ na dakaar fi mu ne nii dafa tumuranke ci ay ay terrain yu baax te même bu dul euh, liggéeyu ligue bi moo war a defar terrain yi mais ligue bi war na am foo xam ne ci liggéey bi mën na ci jàpp moo xam bu doon ñëw di changer panneau yi la wala muy changer euh, tracé terrain yi parce que terrain yi dafa am ay normes internationales yu FIBA euh, tëral boo bëggee jàngal nit wala ngay nit entraîner nit ci terrain boo xam ne tracé bi baaxul wala jaarul yoon da koy sonal rek ëllëg day dem feneen foo xam ne tracé bi day jaar yoon day perdre ay repère Euh, donc côté infrastructure bi dinañ jéem niñ ko daan defee ci suñu wàllu liggéey di dimbale ay euh, structure ñuy am terrain yu baax ci wàllum Dakar kese ci trois dernières années yi ci programme yi ma liggéey jàpp naa ci ba am lu mu gàtt gàtt dix ba quinze terrain yoo xam ne soit tabaxaat nañ ko wala réfectionné nañ ko carrément moo xam bu INSEPS bu sant Tali bu Daabo bu sant Jacques Chirac bu Pikine wala bu Sibac bii ngay gis ni bu nga xam ne bees na ñëpp moom la ñu bëgg a am euh, liggéey nañ ci suñu wàll ak structure yi ñuy liggéeyee fexe ba am ko te ci amine boobu noonu mën nañu jéem tamit def pexe ci ligue bi ligue bi mën a gën a jege structure yooyu pour mën a am la même chose loolu ci wàllu infrastructure la maintenant ci wàllu doxalin fexe ba basket bi ñi ko war a gouverner gouverner ko maanaam ci club bu nekk di nga fa gis ay nit yoo xam ne xëy na bëgguñu dugg ci instance yi parce que am nañ seen ay raison personnelle mais ñu motiver leen ñu ñëw dugg ci instance yi ci base du programme boo xam ne ñoom ci li ñuy liggéey war nañ ci mën a jëriñ ligue bi moo xam ingénieur BTP lañ moo xam informaticien lañ moo xam avocat lañ loolu noonu yëpp xam-xam xeetu xam-xam yooyu yëpp docteur yooyu yëpp mën nañu ko dugal ci ligue bi mu dem ci biir programme yi parce que tey bu ñu amee commission médicale bu dëgër boo xam ne ay médecins yuy am jotu sax di la euh, lijjantil yeneen yoo xam ne yaakaaroo koon wala ay ingénieur BTP yoo xam ne am nañ moyen wala pexe yu ñuy woowee ay entrepreneur yu ñëw jàpp si pour defar terrain yi loolu noonu yëpp ligue bi soxla na ko maanaam ligue bi soxla na ay loxo yu dëgër yu set ak ay nit yu am xam-xam war a mën a taxawal programme boo xam ne xëy na man. maa koy porté parce que maay candidat mais ñoom ñëpp ñu gis ci seen bopp wala gis ci lu ñu ci mën a sax améliorer fa sama gis-gis yam ñu ànd liggéey loolu mooy euh, troisième point bi mooy management participatif ci innovation li ñuy woowee innovation mooy lépp lu ñu fi doon def ñu bañ ko sax créé waat mais ñu gën ko defar mu gën a baax bu moo xam ni ñuy organiser euh, compétition yi moo xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy defee promotion basket bi ak marketing bi ak média yi communication yi ñuy indi ci ay ay ponk innovation ci compétition par exemple bi ma ci gën a xalaat ci innovation mooy coup junior ci région bi catégorie la boo xam ne ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy sàggane te catégorie boobu ngay jógee cadet pare sa formation war léegi dugg ci jàng nan ngay compétiré mais ñu ci bari duñu compétir parce que du am âge dem intégrer équipe senior bi te fi mu ne nii amul benn coup bu fédération bi wala bi fi ligue bi nekkoon ligue bi fi nekkoon di proposer junior yi catégorie boobu suñu sàgganul bu xale yi ci bëri dañuy bàyyi basket muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi parce que nañ dem ba age boo xam ne mu dëgëraguñu pour nekk ci senior euh, mënatuñu jouer cadet léegi dañuy toog di xoole deux ans ba trois ans yoo xam ne même leen jàngoon sax mën nañ ko ci fàtte donc il faut que ñu may leen benn compétition benn coupe boo xam ne man waxtaan naa ak sponsor boo xam ne tey nangu na ko jël en charge à 100 pour cent pour région de Dakar euh, loolu ci wàllu innovation yi xëy na lañ koy dugal mais tamit ci wàllu formation la bokk léegi beneen euh, point bi mooy tamit nu ñuy aaree club bu Dakar yi ci ni joueurs yi di demee. moo xam ni ñuy jugee ci benn club bu Dakar dem ci beneen club bu Sénégal wala ni ñuy jugee ci club bu Dakar dem à l'extérieur il faut que ligue bi encadre procédure yooyu pour joueur bi gis ci boppam club bi mu jugee gën ci gis boppam ndax bu ñu nee transfert u joueur mooy dangay dem fay protection 1 million euh, fédération bi jël 100000 euh, euh, joueur bi jël 100000 club bi jël 800000 mën na gën loolu mën na gën a baax loolu man xalaat naa ne bu ñu demee ci taxi yi saytuwaat ko. pose porter benn réforme ak ay juriste ak ay financiers yoo xam ne xëy na dinañ mën a créer loo xam ne dina mën a gën a dimbale aar club yi aar joueurs yi ci procédure boobu noonu. non non ma ne ligue moo koy def néew ma ne ñun ligue dañuy ñëw ne dañuy créer loo xam ne day tax dañuy aar bi yëpp fan lay commencer ci texte yi il faut que euh, réforme boo gis il faut ñu yóbbu ko ci texte fédération yi mais réforme boobu balaa ñu koy yóbbu ci texte fédération yi il faut nit ñi jug ne lii dañ ko bëgg a dindi. wala dañ ko bëgg a defar réforme bi ci boppam waaw club yi manko xalaat dara proposé ko fédération bu ko fédération jëlee baax na bu ko fédération jëlul tamit ñu xool neneen ni ñuy waxtaane pour trouver entente loolu loolu dafa nekk loo xam ne tey euh, dafa am données yu bees ci basket ñu ngi naan basketball Africa League Afrique yëpp ñu ngi defaru club yëpp a ngi defaru pour participer ci ça veut dire que tey club Afrique yu bëri mën nañ ñëw jël si fii ay joueurs yóbbu te bu ñu jël see li gën fii ci basketballu Dakar yóbbu mooy championnat bi du am niveau du ma sa am niveau te noonu noonu noonu bu ñu protégé wul club yi pour ñu mën a teye seen ay joueurs bu ñu protégé wul joueur bi tam pour mu gis intérêt am ca fa muy dem mu dem fa tam na mu fa war a demee contrat am ñu garantir ko loolu yëpp ligue bi di ci conseiller xale bi di ko ci gunge club am di def noonu parce que bu ligue bi conseiller club bi club bi conseiller xale bi ñëpp ciy gis seen bopp loolu tamit dafa nekk point boo xam ne il faut ñu commencer ci xalaat parce que bu dul sax basketball Africa League mais même fii ñaan nañu yàlla. dugg naa léegi ci benn cadre championnat bu gën a professionnel boo xam ne xale bi lu moo mënti wax tant que joxoo ko statut professionnel mënoo ko protégé donc il faut ñu xalaat nu ñuy yéegee ci niveau boobu noonu nànk-nànk ak club yi ak xale yi parce que lu may dundu laay man ci li may dund laay basé wu pour wax li may dund du sama club man man maay club bi ëpp de ëpp départ ci cinq dernières année yi mën naa ne euh, bu fekkoon ne dañu xaw a yaafus dootuñu am effectif parce que chaque année trois ba quatre feneen moo xam fii moo xam ci biti chaque année ñun ñooy ëpp li ñuy am ay départ am na année boo xam ne damay xool club bu mel ni Wakam ma xool ci deux ans yi jël nañ sama sept joueurs yu jógee sama club su ma yaafu son du ma continuer jouer première division mën nga woon mënoon nga compter ci effectif effectifu Wakam euh, set joueurs yoo xam ne Sibac lañ jógee Sibac la ngeen formé moo xam euh, Iba bi fu mujjee dem la moo xam Babacar Traoré moo xam Alfousseyni bi jógee woon Tëngéej moo xam euh, Pape Sidi Ndaw moo moo xam moo xam moo xam ba ci ñi nga xam ne xëy na joué nañ Sibac deux ans mooy euh, ñoom li ma am ak ay jibeeg ñooñu ñëpp Sibac la jugee jógee pourtant dem ci benn club kese waxuma sax ñi dem ci yeneen club comme MC bi demoon Duc comme euh, Abdourahmane Ren bi bëgg a dem Algérie comme vieux bi jugee débaloog ñëw si ñun def fi trois ans ñu jox ko opportunité mu joué en titulaire en senior tey mu ngi dem ville de Dakar donc ñun Sibac suñu dëgërul woon euh, taxaw ci système boo xam ne dinañ fexe toujours joueur bu dem. beneen beneen bopp boo dagg beneen bopp ñëw du ñu joxe bi jaarul yoon parce que bu doon li ñuy joxe dañ ciy am dara sax xëy na ñu ne dañuy defar di joxe mais dañu xam ne tey euh, tendance boobu noonu ñun xëy na am nañ ay pexe pour di toujours di continuer di exister di jouer première division mais am na club yoo xam ne ñu ko bu ñu jëloon seen deux trois jours dañuy suux mais ñun xëy na ñu ngi def toujours pexe pour di amaat effectif di renouveler suñu effectif mais loolu dudul liggéey bi liggéey bi mooy club bu nekk di former di jëriñoo boobu ñor. bu ma sañoon man lu lay wax samay joueur bu ma sañoon balaa ngeen di jógee Sibac di jël car rapide di dem entraîné ji beneen équipe ci Dakar ngeen jël avion bi ngeen dem sañoon bu ma sañoon noonu ngeen di demee mais comme basketball bi mairie communes yi euh, ñun Sibac liggéey nañu ak ñoom ci liggéey yu am solo en tout cas li concerne suñu commune te xam naa ne modèle buy dox la parce que bu ñu amee terrain tey mairie ñu ko dagal partenaire ñu ko financé ñu tabax ko mais mairie moo ñu ko dagal moo ñu ñëw xool ba fi mu doy fi ko doy mun nañu sanc leen fii seen terrain man maa ko garantir donc loolu déjà benn action bu ñu mën a def ak mairie la même expérience bi def naa ko ñaareem Limaamu Laay ak euh, maire di Sey bu Géejawaay ñaareem Limaamu Laay def fa terrain boo xam ne tey mu ngi am njëriñ ñaari terrain la sax yu am clôture am ay toilettes am salle de classe am lépp li mu war a am bu dul woon volonté maire boobu noonu ak euh, pas-pasam ak surtout réactivité am parce que moom dañu ñëw rek mun nañu jooni jooni acca lu ngeen bëgg ma ma ma ma dimbali leen ci. mais c'est vrai collectivité locale yi euh, ligue bi bu ma ci nekkoon tey mën naa xëy na xalaat liggéey ak ville de Dakar pour harmoniser ko au niveau de toutes les communes communes yi di gën a def ci sport parce que bu dul basket ci sport en général mais ci comme ci basket la ñuy wax boo dimbalee basket bi yaa ngi dimbalee jeunesse bi boo dimbalee jeunesse bi yaa ngi dimbalee dëkk bi parce que euh, xale yi nga xam ne tey ñu ngi dem terrain si Sibac diggante boo rombee terrain Sibac 3 euh, heures de l'après-midi di nga fa gis presque 100 xale yoo xam ne ñu ngi âgé entre 6 ba 10 15 ans. xale yooyu noonu bu ñu nekkul woon ci terrain bi fu ñuy ne ci mbedd bi loolu rek war na tax nit ñi di gën a mérité ci club yi loolu war na gën a tax tam maire yi di gën a jàpp ci club yi parce que club yi dañuy résorber euh, boobu noonu di ko di di di ci éducation yi ci parents yi seen éducation ay doom au lieu ñu dem taxawaalu ji ñu nekk ci sport boo xam ne tey sport bu baax la sport bu noble la et puis bu ñu ci jàngee mën nañ leen dimbale ñu tey gën a tey seen jàng mën na leen dimbale ñu génn dëkk bi am ay bourse comme ni ko ay ñoom amee wala keneen ak keneen donc euh, euh, loolu war na gën a tax mairie yi nit ñii di war a gën a mën a liggéey ak mairie yi mais en tout cas euh, bépp autorité bu nekk ci région de Dakar man bu ma jëlee dig bi naa la seeti ne xool noo ciy jàppe parce que mission d'utilité publique la tamit parce que on est en sport mais on est en service basket bi tey ñii milité ci club yeeg yëpp man ak sama naataango yi ma nekkal si baak yëpp amuñ ci dërëm buñ ci deful duñ ci am dërëm donc dañuy xalaat ne xëy na yàlla dimbale nañu ñu xam basket ñu jaar ci fi xale yi jaar ba egg tey ci am ci liggéey boo xam ne tey mën nañ ci suturlu ñuy xaw a jël ci loolu ñu am tuuti di ko ci delloo pour lool di mën a continuer exister